nag bokk na ni ngi di tembe ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye yegg si na fa nga xam ne it mooy zaanuk gàmmi di amal li nga xam ne moo di ko tournée si li nga xam ne moo di pays yi nga xam ne itam moo ñu daal di wax des na ko daal di faram fàcce si mu gën exactement par rapport ak sur le plan diplomatie lu am solo li nga xam ne itam Bassirou Diomaye mu dafa ni allant dans son sens

fa nga xam itam mooy zaan ko pencum na rewma ma des na ko daal di faram-fàccee si mu gën a exactement suñu ay ponk itam di nga ko daal di yaatal par rapport ak li nga xamni itam mo dal jógee euh, si nga xam nekk moo euh, cour euh, si nak rapport yi nga xam nekk moo 2021 yu daal di ñëw si mu gën a par rapport ak li nga xam nekk moo di bi di nga xam nekk moo covid 19 ña nga xam itam tuddoon ne leen si bokku na si ki nga xam nekk moo di Massou ay ñoom justement job si et tant d'autres et tant d'autres lu mel nak sénégalais daal di xaar exactement seen ko convocation ñu a a xam ne que mu ak wàllu yoonal euh, du nee ñoo ñoo def waaye daal di war a mën a leeral la euh, xam ne itam a a boobu de dossier ginnaaw ba si li xam ne que mu di pare si da ko daal jëbbal li xam ne que mu di procureur bu Sénégal leneen itam loo xam ne itam jëbbal nañ ko xam ne que mu mooy coowal ki nga xam ne que mu di Mamour ak ki nga xam ne moo Ousmane suite à une plainte bi nga Ousmane Sonko dépose na ko ni ki li nga le 10 avril 2018 dali di toppee euh, Mamour Diallo ak ñu mu daal di euh, par rapport ak somme bu daal di 94 milliards signé ay koppar man ni kon si noonu li nga xam nekk off jox na dëgg ki nga Ousmane Sonko en tout cas quest euh, quelle sera donc la suite par rapport ak tous ces événements le lépp ñu si daal di ñëw si mu gëna a tay tey émission li nga info bu tay bi en tout cas donc ki nga xam nekk Ousmane Diagne na li nga xam ne la pain euh, sur la planche loolu lépp na si ànd ki na xam ne moo euh, justement suñu gan mu daldi faré fa na xamni ne it euh, mooy ko parti Pastef alors dañi dal do donc suñu waxtaan justement euh, waxtaan wi nag da ngay daal door par rapport ak ki nga xam ne que moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, bi nga xam ni itam Mamadou décidé na ni daal di war a mën a euh, sàkku ñu daal di génne exactement les rapports yi nga xam ni itam ñeloon na lu su li nga xam ne que moo di Covid 19 bi waaye itam ñeloon na aussi li nga xam ne que moo di OFNAC Cour des comptes et tant d'autres et tant d'autres naka daal di li nga xam ne que moo di gisee justement cet élan si ëpp moom jàpp na ni itam balaa moo ko feneen il faut mu xam déjà li mu fi fekk waaye itam fan la war fan la war a mën a yóbbu li nga xam ne que moo di merci beaucoup Fallou Je euh, vais nga poser une question et je am répondre parce que le président Bassirou Diomaye Faye bi mu ñëwee donc euh, dafa ordonné à ce qu'on publie euh, les rapports de l'OFNAC et l'IGD et euh, comment dirais-je, mm. de, de euh, IGE, et de la mm. Cour des, comptes. Mm. Voilà. Cela rentre dans le cadre de la reddition des comptes, okay. puisque est, il est euh, le nouveau président. Et donc, avec son nouveau gouvernement, avant de, démarrer quoi que ce soit, il en a le droit quand même de comprendre ou bien d'avoir les, de faire un bilan des dernières années, okay. de ces dernières années. Et par rapport à cela, vraiment, mm. bon, au début, il avait, tout au début de son discours, il avait, euh, il avait, mm. comment dire il avait promis aux Sénégalais de faire le djoub, djoubal et le djoubanti. Mm. Donc, parlant de ce, à ce sens-là, donc, je pense qu'il a le, le, devoir moral quand même de, à ce qu'on publie ces rapports-là. Parce que quand on publie ces rapports, donc les Sénégalais sauront quand même euh, les, c'est-à-dire ceux, ceux, qui ceux qui ont bien géré, ceux qui mm. ont bien géré les, les biens publics et, mm. ceux qui, ceux qui ont ceux qui ont mal, géré. Ouais, mal géré les biens publics. Donc cela véritablement euh, lui fera euh, fera, nous fera plaisir puisque quand même les Sénégalais ont besoin de savoir comment, comment les, 12 derniers mois, les 12, mm. les, 12 dernières années, le Sénégal avait été géré. Par ok, c'est clair.

bon man jàppewu ma puisque mon bi donc euh, à travers le, discours du président Ousmane Sonko il nous avait dit mm. qu'il n'y aura pas de vagence, mais il y aura de, il y aura de la justice et par là j'aimerais quand même évoquer le sens de la justice puisque mm. euh, s'il voudrait être là traqué ce serait un retard mais quand même les Sénégalais ont besoin d'être clarifiés par rapport au dossier qui ont été soulevés par ces institutions-là, à mm. savoir l'OFNAC et euh, la Cour des comptes mm. et l'IGE. Mm. Vraiment, ils ont besoin euh, d'avoir un bilan concret avant de, pouvoir démarrer. leurs activités. Alors, alors donc, dans le concrètement, ce euh, que commencé justement par euh, cette traque, euh, prise peut-être en 2012 dès son accession pour Topon qui qui xam ne justement Karim Wade oui, bon, euh, vous savez, les deux cas ne sont pas, sont, sont un peu différents puisque dans le cadre de la gestion de Macky Sall hmm. c'était à des faits politiques voilà hmm. euh, dama jàpp ni Macky Sall euh, ay question politique moi tax moo waraloon mun a mu topp ay ñooñu ay ñi nga xamante ni ñoom doon gérer ci nguuru nguuru Wade hmm. euh, pour maanaam ay ay kii la ay fin politique là alors que kii ni dafa ñëw parce que lii la le la diggee woon dafa waxoon ne bu De ñëwee moom dafa dafay dafay tegaat Sénégal ci yoon maanaam surtout ci justice ci l'oubal parce que li nga xamante ne askan ko bok ñu jox la ko yow en tant que ministre ne la saytu doxalal nga jël loolu nga nga lekk ko loolu loolu vraiment gàtt xel lañ ko mën a jàppee. Mm. ngeen jégalu ci terme yi. Mm. donc man man kii pour pour Ousmane Sonko pour euh, Bassirou Diomaye fay dama jàpp ne dafa bëgg a jubbanti c'est-à-dire teg affaire yi ci lu leer balaa moo démarré et donc ci loolu noonu vraiment bu s'il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas de sanction cela pourrait encourager c'est-à-dire ce nouveau gouvernement. à mm. à faire les mêmes les mêmes actions. et donc ci loolu. Euh, allez-y allez analyse donc ci ci ci loolu noonu s'il y a des sanctions euh, bu fekkee ne am amoon na koo xamante ne mu ngi ci doon jéem a mu ngi doon jéem a mu ngi doon jéem a randal wala mu mu jéem a def naka sa dul noonu donc. Hmm. day day day obligé daal daal di bàyyi puisque comme moom mu ngi mu ngi xalaat ne un jour viendra mën nañu publier rapport ci ci moom. Hmm. alors donc euh, euh, Bassirou Diomaye Faye s'est inscrit dans un sens de transparence à euh, justement si si si propre gouvernement tout à fait euh, c'est la question de, de la transparence même qui a fait que véritablement euh, tous ces discours là se font un discours de de confiance de, quoi, de, de comment dire de de confiance pour pour rétablir la mm. confiance entre le gouvernement mm. et, les, Sénégalais. alors c'est clair exactement par rapport à quoi mais je vous rappelle que vous avez une mission qui li été xam en Info euh, sur les antennes de Sénégal 5 TV alors tey Midi Info ma daal dalal ki nga xam ne que l'actualité, Mamadou Ndao

doon nako ko daal di toppee euh, si kanam yoon ak wàllu yoonal bokk na lu daal di ñaar si nga xam nekk moo di milliards et quelque manam 94 milliards yi tégal li nga xam nekk moo di quelques mille en tout cas mu nek lo xam ni itam jot nañ daal di war a mën suñu curseur par rapport ak euh, loubal loubal gi nga xam ni itam de plus en plus ñu koy daal di gis fi ci li nga xam nekk moo di Sénégal exactement alors euh, dañuy daal di poursuivre batay suñu waxtan justement Mamadou par rapport ak ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko gis neen li nga xam nekk moo di off nag daal di koy jox

Euh, alors ban jàngat nga si daa def par rapport ak li nga xamni tam itam ci li nga xam que mudi rapport yi jox largement Ousmane Sonko raison. bon euh, merci Fallou je pense que Ousmane Sonko notre leader donc euh, lépp lu me ma rek am et hmm. il a insisté à maintes reprises donc disant que. Euh, Mansour je ne sais pas comment dire. Euh, Mamour Diallo euh, Mamour Diallo merci mm. beaucoup Mamour Diallo dafa dañ ko dafa dafa luubaloon 94 milliards. donc depuis je pense que c' depuis 2018 si je ne me trompe pas. Mm. donc bi mu koy wax bi koy wax y a y a de cela 4 ans ou bien 5 ans comme comme ça. y a de cela 6 ans 6 ans voilà 6 6 ans. parce que mu ko déposé le 10 mm. avril 2018. 2018 et bi mu ko bi mu bi mu bi mu ba pare Ousmane Sonko moom bi dafa jàpp lépp lu mu wax rek dafa am fu mu ko teg. Mm. parce que moom boobu noonu moment yooyu mu ngi nekkoon député à l' assemblée nationale. Mm. donc euh, et que après cela on a vu également le président Macky Sall qui a dit publiquement que ah bëri na ay dossiers yoo xamante moom moo ci teg coñcam. Mm. mais sinon kon ju yuuxu mën na ju fuñ ko foogewul donc loolu noonu ñun njortoon nañ ci ne lu am la mais comme que euh, ma Maodo. Mamour Diallo a été couvert euh, sous la sous la présence de Macky Sall donc euh, Macky Sall don moko don moo donc motax tax euh, comment dire mënuñ ko won mënuñ ko won wo donc si le président donc Diallo donc mm-hmm. Macky Sall a mis son coude exactement sur pas mal de dossiers. effectivement parce que.